ngay man di jot vidéo yu am anu solo yi bàyyi koo fii ci SDP religion da ngay bés fi ñu wax ne bo noppé ñi tek ci kolos bi alaykum wa rahmatullah ñi ngi leen nuyu bu baax baax di leen jaare yeen ñi top seen chaîne bi di SDP religion di en balaq bu baax di en balaq comme ko xamé ñi ngi ci koor gi motax tay ñu indi leen waxtaan bu am solo and ak Serigne Bassirou mbacke xalkom mu jëm ci asakay mburum koor naka war a génnee asakay mburum koor ak lan lan ko war a génnee kon bala ñoo guddal waxtaan bi ñu bàyyi Serigne Bassirou Mbacke mu jublu si waxtaan bi Serigne Bass bisimilah. alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil anbiyaa wal mursalin sayidina wa mawlana muhammadin al makin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabiahum bi ihsan ila yawmi din bokki jullit yi ñuy teewlu bokki talibi yi ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel ci weeru tedd wi di ñaan suñu borom mu defal nu ci tawfiq te nangul nu jëpp jëf ju ci jëf nangul nu suñuy koor ak suñuy julli te làqal nu ko fa yàq yëgul mu doon woor weer wu am solo woo xam ni Euh, njëlbeen gi dafa yërmande digg bi di ak njëgal mujj gi di ak gore ci safara mu doon occasion boo xam ne nit ku ne war na koy bàyyi xel ndax yonente bi sallallahu wasallam dafa wax ci benn ne dafa am benn hadis boo xam ne dafa yéeg ci mimbar bi mu yonente bi sallallahu alayhi wasallam daal ne amin toog tuuti ni waat toogaat tuuti ni waat daal di wàcc bi wàcc ñu laaj ko ne ko dañoo gis nga toog ci kaw mi bari rek waxoo lu ñetti amin daal di wàcc mu daal waaw ndax bi ma toogee ci kaw de Jibril daf maa ñëwal ne ma ñetti occasion yi yoo xam ne ku mu rëcc ba mu dee di tàbbi sawar de kooku yal na ko yàlla sori yërmandeem ba ci jëkk mooy nit ku fekk kenn fekkee waaye ñaari way juróom ci àdduna fekkante ñoom ci àdduna mbaa mu fekk fi kenn ci ñoom euh, te fexewul ba am seen ngërëm ak ngërëm way jur ni mu yóbbee ba tax muy dee tàbbi safara yal na yàlla sol yërmande ne noonu ko amin mooy nit ku dugg weeru koor ak ni ci sunu borom yaatale ak njéggalam yàlla yàlla jéggal ko ba tax mu dee di tàbbi safara kooku yàlla na ko yàlla sol yërmande ne noonu ko amin mu bi ci des mooy képp koo xam tudd nañ la moom te julliwul ci yow ba tax muy dee di tàbbi safara ak loolu ni mu yóbbee kooku yàlla na ko yàlla man yërmande mën ko amee kon ñetti occasion la yoo xamante ne lu yomb la te bu ci ne day may yërmande yàlla mu weeru koor boo ci duggee ba génn ci war ngaa seet wecc ay bàkkaar ndax suñu borom moo ko tëralee noonu boo gisee kenn ci sa ñaari wajur mbaa ñu naan yëpp fekk ni jàddu fexe ba am seen ngërëm ndax seen ngërëm lu yomb la boo ko ñàkkee ba dee tabi sawar nag ku ko ko teg sa bopp ba jees mooy ñu tudd yonente bi alayhi salaatu wasalaam nga julli ci moom ni sallallahu alayhi wa sallam boobu waxee seen wetu benn jullit kon loolu mooy muxaddima bi waaye li ma jubloon rek mooy ñu waxtaan ci azakay murum koor ndax dafa doon mbir moo xam ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko farataal ci jullit yëpp te it li doon xekk moom li ñu daan jublu li ñu mooy bëgg way ñàkk yi nga xam ni dañuy jóg di sàkku yu ndimbal ak war a yalwaani ci bisu korite bi jullit yi takkutoo fegal leen loo xam ne fegal leen ñuy dem di sàkku ndimbal ñu dimbale leen loo xam ne dañ ci am luñ jàpp moo tax yonte bi faratal ko moo tax dañuy bëgg bala bala ñoo wari nga gaaw taxaw ci buñ ne ginnaaw suba la ko de boo ko mënee sax nga génne ko waaye nag boo lu mu jeexee daal bu fexe buñ jullee ba noppi bala ñu jullee moom na génn dem ci ñooñ ndax moo gën ñuy dem bay jaax ko jàq nga doon leen ko jox asaka yi murum koor ni ko borom xam yu bari gise ci ni ko war a génne ñi dañuy wax nañ ko génne ci dugub ci li ëpp ci li ñuy dund ci réew muy dugub muy ceeb muy mboq muy xooti xeer yooyu yëpp mën na ko ci génne am ci borom xam xam ne gis nañ mën na ko génne ci xaalis euh, man nag sama xalaat fa la gën a jéggi jëm jàpp naa ne ba ci xaalis war na ko ci mën a waaye li ma jublu dëgg daal mooy ñu soññee ci soññ ci nit ñi bañ bàyyi fuqaraaw yi xel ndax euh, binni koor sax dañuy wax ne bokk na ci xikma bi tax suñu borom farataal ko ci nit bëgg ñu mos ab xiif ki nga xam ne moom naka jëkk amoon na lu muy lekk am lu muy naan mu mos coono bi xamante ni ñi ko ñàkk moom la ñuy jànkoonteel ngir mu man leen di bàyyi xel fu mu toll yaa na koor liñ ci dëgg ci xiifal nit mooy mu bëgg mu bàyyi xel ñi amul luñ lekk amul luñ naa kon asaka mooy bu ko yonent bi soññee ci buñ demee ba koor gi jeex lu mat a fonk la lu mat a bàyyi xel la lu mat a jàpp la yàlla suñu borom defal ndimbal defal nu tawféex defal nu ak nangu defal nu ak dégg ak topp ak jëriñ dina wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. comme ni ngeen ko dégloo defe naa waxtaan bi leer na euh, li mu wax ci asakay mburum koor tamit defe naa leer na ku ko man tamit nga teel koo génnee nee na moo gën.